Alassane Samba Diop jaar na fi sànq. wax na ne ñoom dañu gagné woon appel d'offre bi à sept cent trente millions. waaw nu toog diir ñu xamal leen ne RTS ñëw na dugal neuf cent millions. mu jaaxal leen. lan ngay répliquer ci lool sachant que ñoom ñoo gagné woon appel d'offre bi et que vraiment ils étaient sur la bonne voie pour nekk diffuseur. waaw Pa Assane jërëjëf. Mhm. Euh, maa ngi lay gërëm di la sant. Mhm. di gërëm aussi ñu nga nekkal ko ci plateau bi. jërëjëf. Euh, je pense que problème amul. Mm-hmm. entre RTS ak Emedia. Mm-hmm. parce que ñun ñëpp benn lañu. Mm-hmm. Alassane Diop boobu ngay wax sama mag la. Mamadou Ibra Kane sama grand frère la. Euh, ñëpp dañu jàpp ni. benn la ba pare coupe bi dafay jàll. Mhm. c'est pour un moment. donc RTS moom position mooy amul conflit wala contentieux entre moom ak immédiat. Mhm. immédiat moo am contentieux ak New World TV. ok parce que wax ji dafa simple. FIFA dafa am marchandise bu muy jaay. bu tudd droit de diffusion de la coupe du monde Qatar deux mille vingt mhm. mu teg ko ci table bi ne ku bëgg a bi ci Sénégal parce que ñoom par pays la jaay ban télévision moo bëgg jënd du appel d'offre vente aux enchères ah. parce que appel d'offre day am offre technique am offre financière. am dépouillement public. daanaka yooyu yëpp amul ñoom dañu teg marchandise bi table bi ne ku ëpp lu mu joxe ñu jox la droit yi. le plus en donc loolu. Mhm. tubaab vente la koy wax. ok loolu bu mu amee kooku euh, suñu naataango immédiat. Mhm. proposé sept cent et quelques millions. Mhm. mu ëpp. mu nekk proposition bu gën a mag par rapport ak yeneen télévision Sénégal amoon na yeneen ñett foog naa wala ñeent yu nga xam ne aussi proposé woon nañu mhm. waaye lu ñu proposé woon sori woon na loolu mun naa joxe RTS par exemple mhm. RTS moom mu yoon ci ay trois cent million donc prix bi ñoom ñoo ko indi foofu yeneen télé yi tamit lu ñu joxe woon sori woon na sept cent mille sept cent et million millions yu i média proposé mhm. comme moom day jaay waa ji day jaay rek ñuy wër TV mu ne ah yow de lu nga proposé moom dafa bëri kon yow laa koy jox waaye nag comme man FIFA daf ma tënk ci ay dele euh, dele mhm. yooyu da koy respecté parce que ma ñun man mii di wax yow ñun délai yi ñu teg mooy vingt quatre août soo leen fayul xaalis bi ñun dañuy nangu suñu signal jaay ko keneen parce que FIFA ci boppam dafa jox ay délai dañ ko war a fay xaalis donc ñoom bu ñu joxee immédiat délai je pense que dafa am ay souci ci paiement bi ci lu ma dégg en tout cas ci avocat immédiat lu mu wax mu ne à deux reprises relancé nañ leen deux trois reprises relancé nañ leen mais fay ñu kooku jëlaat marchandise am dem waxtaan ak RTS jubóo ak RTS jaay ko RTS RTS signé bu mu jox RTS RTS fay ko avant délai bi je pense que foofu nag su coow jógee ci média warul wax ci RTS waaye ku ko jaay marchandise bi nangu ko jaay ci keneen kooku la war a waxal mais munoo wax RTS yow lu tax nga nga jënd marchandise bi munoo wax loolu donc ñun RTS dañ jàpp ni ñoom suñuy mbokk lañu suñuy xarit lañu ñu naataangoo lañu amuñu benn problème ak ñoom te duñu mës am benn problème ak ñoom ñoom ñoo am problème ak E-Media euh, ñoom ñoo am problème ak Newo TV nañu xool ak Newo TV nu ñu régler problème bi ñun opération bi bu ñu koy def contrat bi jël nañu ay avocat Sénégal jël nañu ay avocat France ñoom ñoo ñu gunge ci signature contrat bi démb sax soo soo leen seetaanee Galaxy Sport di dégg gis ñu avocat français bi mu wax ci mu wax ci lu wér mu wax ci lu leer parce que du caaxaan xaalis bu ñu ci def dafa bëri donc moo tax RTS très tôt ko encadré RTS nag këru cosaan la këru askan bi la euh, sénégalais yi ñoo ko moom euh, wax nañ sax affaire financement mais financement bi mais c'est normal RTS l'actionnaire principal le seul actionnaire de la RTS l'unique actionnaire de la RTS c'est l'État du Sénégal mm-hmm. mais kooku si jàppalewul RTS kan mooy jàppale RTS loolu aussi il ñu xoolaat ko ñun daal en résumé mm-hmm. jàppaleen ni amuñu benn problème mm-hmm. ak immédiat immédiat ku nga xam ni moo ko jaay marchandise nanguwaat marchandise bi jaayaat ko RTS ñun dañu yaakaar ni kooku la war a wax la très bien Paasan. parce que loolu la ñu amoon lu ñu ci wax. Umar. waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Umar. waaw. dafa am peut-être benn laaj rek comme ça ñu bàyyi la nga dem. Mhm. mooy mooy mooy eh, est-ce que aussi man li ma jaaxal comment se fait-il que yow nga gis approche su appel d'offre bi euh, approche su vente aux enchères ñoom waa immédiat di wax appel d'offre comment ça se fait que. loolu daf ma jaaxal. déggu ma question bi bu baax. noo demane yow danga nga wax vente aux enchères. waaw. ñoom ñu wax appel d'offre. Mm-hmm. waaw. waaw li ma jaaxal mooy e war nañ xam différence vente aux enchères ak appel d'offre. waaw moom moom laa la wax léegi sànq ci sama intervention xam nga soo ne appel d'offre. dafa am lu tënk appel d'offre appel d'offre day am offre financière am offre technique am dépouillement public nga xam ñëpp dañuy toog ñu génn këyit yi ñu ne kii moo am meilleure offre financière kii moo am meilleure offre euh, technique donc moom la ñu jox affaire yi mais yooyu ba amu ci yooyu ba amu ci waa niveau TV ñoom lu leen intéressé rek comme ñoom ay commerçant lañu dañuy jaay di ut xaalis mooy ku ëpp lu mu joxe parce que su ñuy xooloon yeneen critère expérience mais RTS mu ngi commencé diffuser direct depuis mille neuf cent soixante douze Jeux olympiques de Munich c' est le premier de la RTS mille neuf cent soixante douze ça fait cinquante ans moo tax ma ne sànq RTS kër cosaan la rajo au niveau de la RTS mu ngi commencé exister ça fait quatre vingt trois donc RTS du du caaxaan dafa am expérience ñun coupe du monde ak coupe d'Afrique ñu ngi koy jënd depuis plus de quarante cinq ans am nañ ci expérience xam nañu nu muy nu muy doxee amul beneen télé ci Sénégal bu mës a diffuser coupe d'Afrique wala coupe du monde donc ñun dañu xam ci lu ñu nekk je le nag avec beaucoup de modestie mais ñoom xooluñu critères yooyu yëpp ah ñoom critère ñoom critère bu leen intéressé woon rek ñoom waa New World TV mooy le plus offrant c'est tout. jërëjëf Omar Ndiébane ah, yow yaay directeur commercial bu RTS. Euh, non bëggoon naa corriger foofu parce que sama position à la RTS dafa évoluer waaw directeur commercial bu RTS. lan nga je suis conseiller du directeur général chargé des droits sportifs et de l'acquisition des programmes. Ah, nge nge ngebaat ba ma lay xam kat yaa doon directeur RTS ba ma lay xam yaa doon directeur commercial ba kuy directeur commercial léegi. madame Potin la tudd. d' accord. jërëjëf merci jërëjëf. jërëjëf ñun ñu waa Genève yooyu nga nekkal. jërëjëf merci bonne journée au revoir. merci. waa léegi